waaw yàlla dogal na lépp li nga xamante ni bëggoon nañ ko si journée bi yàlla dogal na euh, mën naa ni lépp feet na boor ndax journée bi journée de nettoyage la Cambérène gi yëpp génn góor ak jigéen mag ak ndaw ñuy liggéey ngir waajal appel Seydina Limaamul Mahdi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamante ne moom la ñuy amal vendredi biir ñëw incha allah le 4 ak le 5 incha allah loolu moom moo waral nettoyage bi Cambérène gi yëpp génn suñuy transporteur suñuy ndaw yu dëkk góor ñi mag ñi ñëpp jàpp ci liggéey bi ba yàlla dogal na fi mu toll nii alhamdulilah lépp fekk na boor macha allah ñun daal kontaan nan bu baax a baax a baax a baax ci génn. xam nga woote Seydina Limaamu alayhi wa salaam 142e bi muy vendredi ak samedi tey gars yi jël set setal général doon set setal ñun ndaw quartier bi ak Cambérène jeunesse bi yëpp génn ñëw set setal ñu rafet lu nag. en di wax ni woote Seydina Limaamu day jë gën a jëm kanam day gën a jëm kanam ñu koy dafa rafet mbooloo mi ñëpp génn àndandoo ñu liggéey boo xoolee tali mu set wécc xam nga defar fii yëpp ba mu set kon li si mooy nan jàppoo ñu liggéey si appelu Seydina Alimaamu aleyhi wa salaam bi waaw ñu pare ka rek. waaw préparation rek appelu Seydina Alimaamu bi di ñaanal baay Abdoulaye caw yal na yàlla yokki leeram te taas na si barkeem sunu duudu Maxtaar Laay mi yal na ko fi yàlla yàggal lool mu ànd ak ci barke Baay Laay lépp ñu ba ñuy bale rek pour appel beeg yooyu teeru gan yeeg yooyu. préparation appel beeg yooyu yàlla nañu si yàlla yóbbu ak jàmm ñu am lu ñu terale gan yi ci barke Baye lay li Baye Laye waxoon rek aji boo daaya laay ñi ngi woo ñëpp te Baye Laye dafa woo nit ak jinne te bés bi nekk na bës ba nga xam ne mooy sunu fête national mooy sunu image mooy sunu fête national ñun communauté Layène te li may wax rek li sanga bi waxoon nañu yaatal sàkket yi yaatal dëkkuwaay yi lépp. mbedd yeeg lépp rafet ñu ngi koy defar tey jii lan def journée nettoyage bu mag bi. waaw site yi nga xamante ne nettoyé nañ ko fii ci dëkk bi bari na ndax euh, depuis euh, le 20 la nettoyage bi commencé woon ñu dugg ci ëtt yi lay ëtt ba mu set wécc ñu commencé woon fële si fi nga xamante ne mooy jàmmal laay yonent yàlla Isaa yonent yi saa nga xamante ne mooy buntu Seydina Limaamu sallallahu alayhi wa sallam foofu la ñu démarré woon lay ka ba mu set jóge fa dem si jàkk ji ban nettoyé jàkk ji ba mu set. ñu dugg ci ëtt yi ruq yeeg yëpp ñu nettoyé ko ba mu set ba tey jii yàlla dogal ñu nekk ci tali bi tali bi nga xamante ni foofu la ñuy tëjee. waaw ñu ngi woo gan gi rek li bàyyi laay di wax yaatal leen saaxat yi gan yaa ngi ñëw xam gan yi ñu ngi leen teeru si bisimilahi rahmaani xam nga euh, pare que si alhamdulilahi rabil alamin defar nañ kër yi defar nañ mbedd yi defar nañ tali yi defar nañ jàkka yi defar nañ jumaa yi defar nañ jàmmalaay bi. génn ñi ñi niñ leen ñu bale. defar kër yeeg yooyu dindi mbalit yeeg yooyu defar kër gi eh, defar kër geeg yëpp ba mu baax pour teeru gan yi rek yooyu rek a tax ñu jug pour appel bi rek def ba mu baax rek fa seene teeru sunu gan yi ñaan yàlla mu yóbbu ñu seeg jàmm rek ci barke baay la prélay fii la ñuy njëkkee moo tax balaa ñoo ñëw danoo bëgg lépp rafet lépp set ba ñoom bu ñu ñëwee ñu dugg si bisimilahi rahmaani rahim def seeni ziyaara am mbégte ci dëkk bi ci xar kanam bi nga xamante ne moom la am ci wàllu set ku ne xam na ni jamono yu ñu toll set dafa nekk li nga xamante ni mooy priorité loolu moo tax mesures yëpp jël nañ ko service d'hygiène lépp li nga xamante ni war na ko def na ko ci dëkk bi boo ko defee pèlerins yi bu ñëwee nekk fi si jàmm euh, euh, def seeni ziyaare ci jàmm dellu si waat si delluwaat seeni kër si jàmm. waaw depuis ce matin ba tey nit ñaa ngi ci bale bi defar bi. lépp di waajal wooteeb Seydina Limaamul Mahdi yóbbu lépp di waajal wooteeb di xaar séentu suñu bis bu màgg bii rek suñu yonente bi yàlla bu tedd bii ñu koy séen di màggal bisam bu tedd bii mu yëkkatee woon baatu aaji boo daaya tedd bii amuñu lu dul moom ñu koy màggal nag di ko séentu fa séeni kaa màggal bu baax a baax di séenu gan yi fu waay mën ne na nga ñëw fu waay mën ne rek ñëwal seetal dëkk bi yëpp lépp di waa di ngir di xaar gan yi pour yaatal leen ci biir bés boobu nag ñun fii waa Harlem chaque année dañuy maye ay ndékki te yaakaar naa ku commencé ci benn dem bay indi ay 1000 kilos mburu 2000 kilos mburu lépp di ko maye gan yi kon gan yooyu noonu ñun duñ leen wax lu dul ñu waaj appel bi ñun ko daan waajee di ñëw ñuy njëkk a dem jàmmalay te duñ am dara luñ def seen biir yi ndekki yooyu ñoom ñooy borom bu ñëwee ñu jox leen ko. di xaar gani nag ndax gani ganu Seydina Limaamu la sallallahu alayhi wa kooku moom moo moo taxawoon yoof ni aji boo daaya laa kooku la ni feddaliwaat baat boobu mu waxoon muy aji boo daaya laa yaa maasara insi wal jinni inni rasulullah ilaykum loolu la ni feddaliwaat ci jaam yàlla yi ñu xam ni. loolu moom moo agsi ñun ñëpp ñu ngi xaar gan yi incha allah. ñu wax ni kale yi leen kaay leen dikkal leen yéen yegg si ngeen woote Seydina Limamou ñun waa Cambérène pare nan waa di woote ñëpp nag di wan gan yi ku fu waay nekk fu waay nekk si àdduna fu waay nekk si senegal ñu ngi lay woo si bis Seydina Limamou alayhi wa salaam ñëw leen ñu dalal leen si jàmm ñëw leen ñu woote woote Seydina Limamou bi alayhi wa di woo ñëpp nag ñëw leen ñu dalal leen. seeni may rom ay ngëneel ñoo di capitalu Xayla la ñun ñooy bégal maam li maamu laay sant yàlla nu war bi laay leeri bay laay jolli na siiw na fépp ñun dégëm nanu ndax moom ma doy maam li maamu laay